Guédiawaye assalamu alaikum les patriotes assalamu alaykum wa Pastef Ousmane Sonko Mangile nuyu di sante ñepp ñima ma fekk ci jotay bi di len wax ne ne je dis Jimori, réponse bi rek la là. Yen la jeunesse sénégalaise ce pays a besoin d'une jeunesse engagée d'une jeunesse déterminée pour mettre hors d'état de nuire ce système politique qui n'a que trop duré ce système politique qui a toujours tiré le Sénégal vers le bas Sénégal Taïdi Boutolle, bu fi yu nekk ci nguur gi di mos ak di lekk dong ñoo fi bàyyi bu ngeen taxawee dana doon loo xam ne lu ñuy changer la li ma bëgg ngeen comprendre ko mooy bu ñu kenn découragé le combat que nous avons entamé c'est pas un combat de gëm sa c'est un combat pour tirer le Sénégal de ce marasme économique combat du combat Bougane Combabi combat du combat Ousmane Sonko mais c'est le combat de tous les Sénégalais Sénégal le nouveaux asalo Sénégal le nouveaux Yak. Sénégal j'ai nañu et aujourd'hui nous taxaw nañu pour retrouver suñu Nangouat nanguwaat suñu réew jëlaat les Sénégalais ñu yoral ko seen Gouverneur ko on n'a pas besoin de dirigeants complexés on n'a pas besoin de dirigeants suiveurs on a besoin de patriotes dans ce pays on a besoin de sénégalais qui bëgg s'en réew pour ñu Sénégal Sénégal ci situation bi mu nekk bu vous toog ci seen roq vous naan élection parce que actuellement loolu lay wut ne la ma ko waxoon démb ak bërki démb day dellusi si dégg naa ko moom Jimbori moom Jimbori nee na non non non non non non bu leen ko wax loolu bu leen ko wax loolu bu leen ko wax loolu bu ko wax loolu waaw non ma ne bàyyil ma wax Jimbori xam nga lu tax Jimbori xam nga lu tax Jimbori parce que jimboor yi mooy ki fekk nit ñu fal la nga fekk nit deful dara nga teye ko diko dool lolu moy mooy yi et lolu mu ñu tegal inshallah rabbi danañ ko teg lu metti mom danañ ko teg lu metti mom jimboor yi dégg ko mu remplaçant yi nañu dem tok bande de touche c'est normal beure la xam parce que dégg na ko muy cha mais xamul ne ce qu'il ignore c'est que Khamoul ne remplaçant mooy dogali et remplaçant bi Mokoy dogali remplaçant bi mon deuxième tour remplaçant bi Mokoy koy palais Inch'Allah. et je remercie mon frère Ousmane Sonko parce que nous avons beaucoup de gis-gis dañu bokk mag moom

photographe tubaab le dem wuti di ko fay ak suñu impôt vous trouvez ça normal regardez une ville comme Guédiawaye bëgg naa ñu wax ma lan la population Guédiawaye wax leen ma lan la yen population Guédiawaye Yen armer sax armer sax ken munu len koo jox Armer, armeer nga xam ne moom minimum gën ci lu nguur def